c'est un peu c'est un peu bizarre. parce que je vois une Sénégal boo xamante ni on dire que euh, au lieu que mu renforcer sa jeunesse muy crème de la jeunesse yi nga xamante ni ñoom ñoo war a mën a relever défi bi mais on les on les détruit quoi ñu ngi leen di jàpp hmm. di leen tëj di leen exiler di leen torturer duñ leen may sax fu ñu exprimer woo seen gis-gis quoi ak mm-hmm. seen dégg-dégg mm-hmm. donc euh, c'est un peu contradictoire quoi et paradoxe pour man mm-hmm. parce que tension bi bari na et puis c'est un peu aussi euh, xaw na metti ci xel à six mois des élections mënoo koo tànn candidat xamaguloo kan mooy kan mooy d'office pour dem Mhm. pour nga war a parce que heure bi waroon na ñu fekk ñu nekk ci ay débat ci ay débat waaw quand même candidat yi waaw ci ay programme ñu liir programme ku nekk mhm. créer ay débat comme mhm. ñu xool vraiment kan moo ñuy proposer loo xamante ni gis nañ ci suñu bopp parce que à la fin les politiciens c'est des acteurs politiques mais le peuple ñoo nekk ci gaal gi ko ñun ñooy décider ñooy voter le peuple dañu war a xam ñi leen bëgg diriger fan lañ leen yóbbu donc boo ñu privé boo ñu privé euh, loolu kooku dafa metti ci xel quoi kooku dafa mel ni euh, dafa mel ni yaa ngi ñuy privé suñu droit quoi. Mhm. loolu lay xaaw ni rôle. donc euh, crise de crise lay créer quoi crise de crise psychologique. waaw ah, les gens sont là ku nekk di. donc xam fooy orienter say say say hmm. réflexion ak say pensée quoi. Hmm. est ce que est ce que est ce que ni mu demee noonu ni situation dëkk bi demee tamit xawul orienté un peu comme li ngay wax euh, li nga xam ne moom la presse bi di bind parce que tout le temps ñu ngi ci politique bi ñu ngi ci yenn yenn yenn yenn métit yi ne ci dëkk bi dañ koy fàtte parfois politique rek. bon xam nga man déjà crise bi dama koy gis dans tous les niveaux dama koy mm. gis ci niveau exécutif bi ci niveau parlementaire bi ci niveau judiciaire bi mm-hmm. même ba ci niveau presse bi dama ciy gis crise mm-hmm. donc crise bi bàyyiwul fenn ko mm-hmm. parce que presse bi aussi euh, maa ngi sentir ni journalistes yi amuñu liberté vraiment exercer seen métier comme ni ñu ko yëgee parce que même bu ñu dul ñu dul journaliste ñun ñi nga xamante ne ñooy société civile bi nekk ci dëkk bi di dund euh, boo commencé wax dëgg dañ lay commencé avertir nan la moytul. waaw <laughs> nan la moytul déjà imaginel koo xam du dara moom citoyen simple la nga ni am na droit wax ni mu gisee dëkk bi boo ko waxee ñu ne la moytul. sàkkamtu mm. man ak koo xamante mu ngi ci exposé wu ci télévision bi. à mm. vingt quatre sur vingt quatre. Mm-hmm. boo defee sa métier comme il faut est-ce que. est-ce que duñ la jël si. est-ce que duñ la jël <laughs> parce que tamit euh, et puis ce que je compte constate aussi euh, ci euh, bi dafa bëri ay patron de presse yoo xamante ni duñu ay journaliste. Mhm. loolu moom doyen dina doyen loolu moom question la pour yow moom xaw ma xaw ma kii la pour yow loolu moom loolu man am ma bëggoon laaj doyen eh, sànq lu ma ñor on dirait que business bi dafa dugg dans la télécommunication da mm. ngay da ngay créer eh, eh, sa sa organe de presse te toog journaliste te du sa métier mais tout juste da koy def pour des intérêts mm. donc à la fin kooku sacralité bi journalisme am ak. Euh, du ko xam du ko xam quoi. Mhm. Mhm. tout à fait. donc euh, tamit euh, seetlu nañ ko a ci mhm. milieu politique bi ci situation. dëkk bi ngay sori doyen ñëwal foofu ci presse bi li mu wax noonu. ci crise crise bi mu laalee ci les niveaux